dañ koy ganalewaat fii tey waxtaan ak moom gën koo leeral suñu activité gën koo leeral suñu bopp ci moom te xam ne lépp lu ñu waxoon démb tey moom lañu ñu gën a gëm te loolu la gën a gëm te loolu la ñuy def bu soobee yàlla ñu nekk fekk suñu ay papa suñu ay nijaay suñu ay rak suñu ay jarbaat suñu ay frère yoo xam ne guddi ak bëccëg ñu ngi waxtaan ci waxu Thierno Alassane Sall mu doy leen trop ci ci ni mu duggee woon ci ngóor gi ca lam fa wane ak jikko ji nga xam ne moo fa nekk parce que ñun ay Cees waa pire nañu lépp lu nga xam ne dañ siy dugg te moo arrangé askan bi ci loolu lay dox ci comme ci loolu lay dox ci loolu la ñuy dox it loolu la ñu bëgg moo tax tey bu ñu seetsee dañ koy recevoir fii ñu ne président garage bi adjoint bi ak secrétaire yi ak membre garage bi yëpp ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu ci seen tur laa koy waxee ñu ngi leen di nuyu di la gërëm di la sant ci seet bi nga leen seet si tey ñu am nag ay déficit yu bëri yoo xam ne ñun am nañ ko ci garage bi am nañ ko ci suñu diggante ci liggéey bi am nañ ko ci diggante ñu nag autorité yi am ci enn problème muy côté bii nañu am muy jobaas nañu am fii nañu am ñun ñëpp fi nañuy wutsee li ñuy wut lépp fii nañ koy amee ginnaaw yàlla nag yàlla daf laa bëgg jox maire bu mag bi ak maire bi ñuy ñaan yàlla si li nga xam ne moom la ñu am te mën ko muy suñuy carte fas yéene nañ la koo jox le 23 jotee incha allah rabi dinañ la ko jox pour uniquement li ñu soxla ci biir garage bi nga mën ñu seet dimbale tey ak suba lépp problème yi ñu fi am yëpp daal mënuñoo jeexal lépp mënuñoo dënk lépp mais dina am tuuti lu la ci mosal suñu duus bii ñun ñoo ko kërti kërti suñu bopp ñoo fexe ba zinc yi nekk te lii ñaaw na ci ci gisin lii nii ñu ngi koy dund ñu fiy jaar ñu ngi koy dund ñi ci bis bi même chose ñun ñoo bokk liggéey bi yëpp ñun ñëpp li ma bëggoon nag mooy président ci boppam laa bëgg mu jóg am benn kàddu rek boo xam ne dina la ko ci wax mu nekk loo xam ne daal mooy suñu wóllëre ñun ak yow ak li ma gëm démb ak li ma gëm bërkaat démb quartier cité Ousmane Ngom sa quartier la som sa quartier la wane nga ko à maintes reprises je pense que fii c'est la cinquième fois ñu lay recevoir si suñu bii tey jii cité Ousmane Ngom ku fi mën a taxaw yëkkati loxo ni ko def nga fi dara Thierno sañ nga abu échelle taxaw ci kaw a kaw a ne li fi nit def def naa li li toll noonu wala lu ko raw parce que depuis 2012 ba léegi def nga fi 10 leket su ma lumee damay juum donc vraiment ñun dañ lay remercier si loolu xam naa ne vraiment yaa ñëw ñoo xel lu ñuy dund moom vraiment euh, souffrance yi ñuy dund xam nga ko yëg nga ko loolu mooy tax à chaque fois soo yëgatee benn programme boo mën yëgati da ngay sol sa dàll ñëw ba cité Ousmane Ngom waa cité Ousmane Ngom nag ñu ngi lay sant ñu ngi lay remercier ci loolu vraiment fii nit liggéey na à cause de yow monsieur le président loolu lu ma xam la vraiment di rap ma rappelé benn anecdote bu bu bu bu gàtt rek fii yaa yoon euh, une année boo xam ne centrale bi tàkk na fii vraiment Thierno gis nañ sa réaction parce bu fekkoonte ne gaawoo woon Ah, ah, y yaa eu des voix qui s'est yi yu yu waxoon sax ñoom dina am ñoo xam ne dañ leen di miite fii parce que fii wóorul donc yow taxaw nga loolu loolu lu ma xam la dañ cee taxaw def lu rafet donc vraiment dañ la siy sant di la gërëm vraiment monsieur le président bon léegi nag fii cité Ousmane Ngom pare nañ pour gunge la pour nga gagné mairie bi pare nañ pour gunge la jusqu'au palais incha allah monsieur le président am nañ tuuti doléance nag monsieur le président ñu ngi may yóbbante jeunesse cité Ousmane Ngom ñu may yóbbante vraiment car Thierno bëgg naa nga jàppale jeunes yi nga jàppale ASC cité Ousmane Ngom ASC Tund vraiment ñun suñu problème yëpp foofu la dañuy yëgal dañuy solliciter mais vraiment la situation est dure monsieur le su ñu manee am jeunesse bi rek vraiment suñu politique je pense que kenn du des parce que ku gis mbooloo mi tey xam nga ne cité Ousmane Ngom daanaka kenn desul donc vraiment bëgg naa nga jàppale ñu si côté boobu. fii nii ci Thiès ñaari mairie yu mag yi lay laaj ñetteel bi suñu naatango moo fa nekk lu ñu naan wax ma ñan ñoo sa xat ma wax la ki nga doon muy mairie est bi suñu naatango kii di monsieur monsieur Serigne seen moo fa nekk. ñaari mairie yi nag Thierno Sall di laaj muy mairie ouest bi ak mairie ville bi ñu fa nekk ñoom déjà dañu waxaat seen bopp bu njëkk bi. ab maestro moo fa nekk maanaam ab waykat amul dara lu mu def ci mairie bi bu mu fi nekkee ba tey bu ñaareel bi muy mairie bii fi nekk muy mairie ouest bi ku fi nekk ku fa tegoon nee na ko defoo dara jëlee ko fa kon yaa xayti ñun waa Mbour 1 suñu sas lan la muy élection yi di ñëw mumbaay bi neex na tëgg yi neex na fu ñuy xaar mooy le 23 janvier ci ngoon suñu génnee ci urne yi Thierno Alassane Sall am fa ndam man damay wax saay su nekk def nañu ay campagne fu ne wax nañu lu ne def nañ ay porte à mais man Babacar Cissé fii su ma ko defoon ay nit fii ba hôpital Barthélemy sama xel du dal sama fit du dal sama liggéey def ma ko suñu liggéey man ak ñu ma àndal ñoom Alfred ñoom Mamasi ñoom Sika ñoom ñëpp suñu xel du dal tant que joxal woon ñu ñu gagné li nga xam ne mooy suñu centre bi muy Kër de Gérard heure de Thiel Adwa di profité nuyu suñu maman euh, mère Absa Pouy dafa feebar mais soog na ñëw ndax man maa ko di sant di gërëm ki nga xam mooy Baye Fall dafa feebar mais fexe na ba ñëw ñun suñu kàddu euh, euh, yaa say daa def moo xoon soo ñu jëlee kàddu waxal si programme bi mais yàlla xam nañu ay fan a ngi nii nelawuñu dañuy nekk si terrain bi tey toute la journée ñoo ngi si liggéey bi di liggéey dañu dem ba dañuy de fil ndax duñu xamante lan lañu war a def lu ñu gëm mooy mbokk yi dañ leen di ñaan suñu askan ñun ñoo ko war a yoral suñu bopp suñu avenir ñun ñoo ko war a yoral suñu bopp surtout ñun ndaw ñi élection yi di ñëw ay élection yu am enjeu la élection yu fi ñëw bokkul ak élection yi nga xam ñoo fi romboon élection yi tête de liste yi ñoom lañuy votel jël leen ngeen comparer par tête de liste yi nga xam ñoo nekk ci yeneen parti ñoom ak Thierno Alassane Sall même soo tegee seen photo sax nduruwuñ nduruwuñ ci dara kon loolu ñoo ngi ci bàyyiloo ñëpp xel